oui on a on a vu des annonces parce que quand même il faut il faut dire que dañoo annoncé ay baisse mhm. te defe naa gouvernement bi ba mu koy wax sax dafa am lu ñu wax ñu ne ces annonces seront effectives après la tenue du conseil national de la consomation mhm. ndaxte mm -hmm. il faut il faut que ñu xaw a euh, distinguer tuuti gis nga ci njëg yi ñuy jënd ci boutique bi ak bu mënti doon dafa am lu ñu tudd des prix homologués dafa am lu ñu tudd des prix administrés dafa am lu ñu tuddee des prix libres. Mhm. prix homologué mooy am na ay njëg yoo xam ne ci décret lañ koy jël. mooy waral par exemple njëgu transport prix transport yi décret moo koy jël. Mhm. donc loolu c'est des prix homologués dafa am ay prix administrés dafa am ay prix yoo xam ne dañu naan nii lañ ko war a kiiwee arrêté ministériel moo koy jël. moo mhm. am nag loo xam ne ay prix libre la tey jii ni yow sa tablette bii nga yor. Euh, kenn du la wax loo koy jaayee yow yaay xool en fonction de nu nga ko jëndee lan nga ciy teg mm. donc ñett yooyu il faut ñu distinguer ko te léegi nag pour les prix homologués comme pour les prix administrés mënoo mm-hmm. yokk wala wàññi lu dul conseil national de la consommation am ba pare te conseil national de la consommation pour mu am il faut nga dajale trans euh, grossistes yi demi grossistes yi détaillants yi technicien ministère du commerce consommateurs yi ñu waxtaan

premier ministre lu mu doon wax ba mu nekkee ci opposition bi man gëmuma réalité politique volonté politique laa gëm bu ñu falee ñaari weer ñu wàññi njëg mhm. te ñaari weer yooyu mu ngi doon romb na ko donc il fallait mettre quelque chose sur la table. au bout du compte on peut aucun pouvoir n'est insensible à la critique. pouvoir mhm. bu mu ci mënti doon bu Sénégal ak bu bitim réew a yem lu ngay wax donte la xëy na duñ la mën a tontu comme ni comme à à tout instant. Mhm. mais na xam ni lépp loo wax dinañ ko dégg. na xam ni bu fi invité mu wax ils ont des équipes yoo xam ne ils font du reporting après dañuy toog ñu ne diw wax na lii diw wax na lii et cetera. Mm-hmm. et puis ils surveillent les réseaux sociaux ils surveillent euh, yeneen ak yeneen donc xam nañ lu nekk di wax bu dul loolu aussi c'est un pouvoir qui a un système de renseignement qui mm-hmm. xam na sénégalais lu ñuy xam da tey jii nii am na yow loo xam ne yow xamoo ko te ñoom xam nañ ko donc loolu yëpp bu ñu ko boolee forcément bon c'est des outils d'aide la décision il faut